Así que Mercury, Mercury, Mercury. ci biir lañ non

daal di ko téye ci bunt bi kii amu ngi xarit table amu ngi mais di ko téye ni ñu duñ duñ ah xamul demee

Maaf.

ay mbokkam donc ak euh, bépp donc bu fekkee ne yàlla daf ko may premier bisam nga ñëw fekk mu mel nii mu mel aussi doo def lu dul sant yàlla ak kontaan ci torop nag dëgg yàlla waaw gis ne euh, invité na famille Seck yëpp waaw euh, ci bés waaw xam nga man maa ngi doog a egsi nii. donc bisu Faramareen la. donc fay nañ ko xamaguma nag lan moo nekk ci biir parce que maa ngi doog xam nga man damaa ñëw rek ngeen jël ma directement donc xamaguma lu lu am ci biir waaye daal li daal mooy bisu Faramareen. mais bésu Faramareen Papa Thione nekk nekkatu fi. waaw euh, ndax yaakaar ngeen surprise surprise bu rëy bi ngeen ko war a waajal fii nii ci Grand Théâtre. ah waaw surprise moom mënul ñàkk moom wax dëgg yàlla seulement nag xam nga dafa fekk ne mooy comme li may faral di wax rek ñun ñëpp kenn ku ci woy rek. c'est parce que Thione euh, moo tax nga woy. waaw yàlla na ko yàlla mais Papa Assane ginnaaw bi nga xamante ni yaa ngi génn album bees tax muy cofeel waaw ñi nga xamante moo di Keba Seck tamit song tey ji seen fu mag a mag muy grand théâtre waaw tey ji gisuñu njortuñu ne musique bi fu mu dool ni mu ngi ci loxoy Faramaré di daal ah bon dañuy sant yàlla ah. dañuy sant yàlla bu baax a baax ah. euh, julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ah parce que nag euh, mooy li may li may wax rek euh, maanaam ñun dañuy dañuy dañuy dañuy jéem a yeggale ah. Euh, lépp lépp ci coon la après Mapenda après man ma doog a ñëw Ousmane Kéba nangam suñuy doom doog a ñëw donc sant yàlla ba mu am bis bu tol nii euh, àddina bi yëpp ñëw wuy si ko lii mbégte la mbégte mënul weesu lii waaw macha allah. album bi est-ce que euh, est-ce que mën nañ ci xaar featuring al man sama album génn na déjà. waaw ah, sama album génn moom album moom je crois génnagul mais lépp lépp gi ci biir parce que c'est la famille c'est la famille quoi. waaw. tey ban ban ban type ngeen préparé pour rendre ci hommage Papa Thione. lool ah non loolu nag dama koy denc surprise lay doon donc bu ngeen duggee ba ci biir incha allah rabi ah incha allah. bu soobee yàlla ah yaa ngi waajal événement bu mag le 18 juin. 17 juin le 17 juin. waaw foofu noonu ca euh, King Fat allah ma ànd ci euh, ak waa ban ngeen am ci événement waaw waaw xam nga xam nga projet bi album la woon ak euh, le 17 juin o King Fat Palace donc album bi génn na le 16 macha allah cofeel donc léegi nag dañuy commencé promotion bi après nag ci mu àndaale encore ak grande nuit bi le 17 juin au Fat man nag waa Raf Prod nag ñoo ko tëgg parce que ñoom la ñoom laa jiital ci yëf yi ñoom ñu porter projet bi sama doom madame Gaye Clara waaw. question yi baax